waa Sénégal ndogu leen dafa yegg si lépp lu na bi am naa lu ma naqari. Ah. xale yi léegi ñoom de koor waxtuñu si dara ñàkk jom de dal la leen bu jëkkër sax xale jigéen da nga ñu ne la dañoo am baax ñu ñëw ne duñu war ñu xam ne après dinañ fay semaine waaye léegi weer ba yëpp nag faf duñ ko woor ñàkk jom xam nga toone loolu seen parents yi la rek ndax doom boo ko yoree à bas âge ah. da koy yar ci koor yaa ngi dégg boo ko su màggee du mën a war waaw loolu dëgg la parents yi dañoo son jamono yàqu mënoo ñëw contrôle loolu lépp loolu moom kenn mënu nekk moom jamono yàquwul jikko yoo yàqu xanaa du lii ngay wax léegi xam nga xam xam xam xam xam nga ne lii baaxul xoolal ma li ñu sol xam nga ne lii gii coonuñ baaxul xoolal jumbax gi si biti na pëlax ji pël ji pëlti nii ah jàpp jiin dangal ko ba mu dang nii nga yaakaar ne yow da ngaa nekk si nii ñi xam nga ne ñi ñii mënuñu maa moom ñi mënu maa mooy ñii il faut moo wax leen dëgg ñii mënu ma leen ñàkk ba ñu wax dëgg ma ne ñii dinaa leen wax dëgg xale yi yarawuñ de bu ñu yar ma gën leen xamadi man magum jëmma ma ma gën leen xamadi ah. ñii il faut ma wax leen dëgg damay bañ nga wax leen dara ñu foog ah? xoolal ma xoolal ma lii rek ah ey ey ey ma ñëw waaw waaw ah. mooy yow sama yoon nekk dinaa wax dëgg li sol nii nag lu ci nekk dax dafa nekk si waaye weeru koor lañ nekk boobu daa fekk ne sa koor réen na. waay sama yoon da si nekk sama koor laa lay wax ni da ngeen sol sol sol bu baax. waxal li ngay wax gaaw dañoo yàqantu daa am ay yitte yu ñuy dox. Ah. waaye yéen fan ngeen dëkkee. li nga njëkkee nii. Ah. li nga mujjee moom nga waroon njëkkee. Ah. wàcc nag daanoo ci gën a gaaw. <laughs> damaa bëggoon ndogu si rek. <laughs> ndogu si. waaw. ah dina ma neex. ñu wal ñu fël fëlaale. fël. fëlaale mooy lan. boo ñëwee la ko. nga ne ci kaw. loolu wayu yéen seen terme yooyu dina ma rey fël falaale jël. 10 lii bëri na de sëñ waaw jamono ji 10 000 de gisatuñ ko fee. jar ngeen ko doom. ah yéen ngeen di dàqee kooram a neex. boo ñëwee defal la ndogu bu baax. nga ne yéen kay dinaa ñëw ngeen ne boo jàddee koñ bi. Mhm. boo jàddee premier étage à gauche. yéen kay ngoon maa nga fa. maa ngi ñëw yéen kay na seen xel dal. <laughs> doom ni ngeen di dàqee koor neex na ma. barke Rasul i ñaan dong moo tax ngeen ñu leen soxora tuba yi ki ko defar sax day dem àjjana maa ko wax. yow mën ngaa waat ni ba nga demee ci xale ba léegi yaa ngi doog a ñëw. ma wa xanaa du leen wax dëgg xale yi li ma leen wax dégg nañ. te da nga faa yaradi bu yaradiku da ngay taxaw nga wax moom man kilifa laa damay wax ak ñoom la ma leen wax. billaahi wallaahi dootuñu ko fàtte ba ñu dee xas naa leen ba ñu raab. jàpp sakam jàpp sakam jàpp sakam. jaalu bu rëy rëy bu koy jagam. jàpp sakam jàpp sakam jàpp sakam jàpp sakam. jaalu bu rëy rëy bu koy jagam jàpp sakam. jàpp sakam jàpp sakam jàpp sakam. jaalu bu rëy rëy bu koy jagam jàpp sakam. waa kii du bara maa ngi nii. waaw Barak namm naa la de. bilaay maa raw maa raw lu bari sax. yow de Barak bu ma seesee ba tey ñëwoo fi. waaye gis nga rek xat-xatu àdduna rek ak weeru koor gi. da nga maa bàyyi nag. yàlla teer ba du ma la bàyyi yaay sama doomu nijaay yow laa am. <laughs> dégg yow rek yow rek laa am. sa fas mënut a daw. Ah, ah, xam nga ne sama kër nijaay ku fi ñëw lekk bu su yow kay xam nga ne loolu moom. jeex boo ndogul kenn du ndogul. billaahi waaw namu naa la de. billaahi noonu laa la appuyagé. diggam naa la appuyagé autoroute la. yéen a boo ma appuyagé raw nga ma. kon wallaahi. naka waa dëkk ba. ñëpp a si jàmm. ñëpp ngi si jàmm. waaw. coo. xale bi eh muy ma yow yaa ngi mel ni tool yii sa fengu lu ne kii fuuyu kii war na maa wax sa fenga nu ne billaahi xoolayee eh, man du ma sa morom de bu ma la rombati ngay wax ci man yabaate mais ma jàmm fii yaa fi rafet ñu wax ko ku fi rafet ñu wax ko su ma rafetee rafetuma pour yow waaye kalaas yow Rama indiscipline nga ne yow war ngaa waxe kii nii dalaa mel yow xanaa xamoo kii sama mag la danga war a xam nooy waxee ak moom. daa ilaaha illallah naka jekk ma xam ne même famille la. Eh! amul kenn koo xamante rek xaw na cee nite ku ci nekk am na benn kii xoolal ma xalima gi koo bind da koo bind ba pare dam amatul sama morom de. yabaate ko bëgg a. ñun ñëpp a rawatina yow yaa gën a dof ñëpp sa famille. kan yow boo eh, eh, dóor ba paam sa kaw. dinaa ko baram ñoox. nga mel ku malaaka pes ni <laughs> man ngay xas yow yàq nga ko ah la nga mel ne xooxu buy yow mu yaa nuru xooxu buy kii bu ko topp dégg garaaw eh wuy bu la toog sax baaru pasta mi ah. billaahi xaar eh, ah, de xas na ma nag mais tooy na wallaahi ah déet kaay nii kaay nii kaay nii dama war ba ngoon dara ko indil pot bi rek indil pot bi. moom indil ndox mais ma indil la ndox. ah waaw. coo. bakkurooni pasta mi dama koy lekk pasta mi. Macaroni, passa-me. Tabakalekaleku, passa-me. Macaroni, passa-me. Ué, tu imagina. Dedukeleku, passa-me. Eh, boy, eh, eh, eh. Eh, boy, eh. Nakaleku. Eh, yo, kana yewan, taibin. Passa-me, mala. Wa, yow sax xam moom xam yow ma wax nga tiim màtt yoon bi nii di ko yegg. man man kii mu Ndiaye. yow ngay tàcc nga naan wuy tàccee tàcc bu ndaw wuy waa Medina di ti yéen ana waa famille Cissé ñëw yéen daaw ñëw yéen tàcc ngi ci tàcc wuy tama da eh, eh, eh, du koy gën du koy gën tama du koy gën tama tàcc ya tàcc ya dooye dooye dooye waaw yow xanaa xamoo kii sama sang la moo la may jabar ah, ah bon ay moo nam li noo ko mën a defee nit ki yow tamit kii mooy sa jëkkër. kii mooy sama ah, mi ñoon yéen seen famille bii moom te di n'importe quoi. lii. ah dama war nga maa wax lii. Ah, waaye yéen seen famille bi doy na waay de. suur naa sax mi ñoon. kii yan yaa nekkal. suur naa am na beneen bi ñoo xoolal muus ji dabaatu cee bot. muusu la daa bot ci famille. wuy tamanday wooy man ay wuy tamanday. ànd yéen yéen ñaar wuy tamanday waay ay. kii sa borom kër. kii sama borom. yaram bee naqari nag. waaw man sama tas bi naa fekk. wa sóoratuma sax. pasta bi. pour que lekk lekk pasta bi. ñëpp fay na.